góor ñi nga xam ne dañ leen a may seet bu bees te wóoruwuñ seen bopp même boo amee son dix ans sunguf dambal baa ngi nii garab gaa ngi nii sunguf bi matta baa ngi nii muy palante bi plante naturel la cent pour cent kattan cent pour cent naturel jooni jooni da nga koy jël mu lay jox li nga bëgg nga jël ko quinze jours delluwaat ci say dix-huit ans jigéen du la yeb ci kaw lal góor ñi nga xam ne dañuy gaaw a daanu wala jigéen ñi nga xam ne duñ yëg bànneex karité bii lañ koy booleel di ko diw ci seen sexe boo koy diw ci sa sexe dana rëy te itam da nga yëg da nga yëg bànneex te itam ko sëyal dana am plaisir te itam mbokki Senegal, mbokki bitim rew Serigne Cheikh Ahmadoul Al Amin nek ko yalla baxal ku yalla may ci walum ñaan walum fajj muy dimbali ay doomi da nga am problème si sey da nga new katan ba nga gaaw yek sa bop mo ci gëna gaaw yow mi nga xamantene da nga nek mak sa katan wañeku mo ci man te mo ci gëna gaaw wala lu jëm ci walu bayre amna ay jaaru bayre yu baax a bax te wóor na ngeen ci daw ndax jaaru yi lool sax ndax jaaru bi li si nekk ci ay secret bari na loolu sax list xaar nag moo ci gën yow mii nekk bitim réew am ay jafe-jafe papier maanaam lu jëm ci wàllu këyita dawal gaaw gis ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh ak Madul Al Amina boo amee liggéey bu nekk ci yaram liggéey bu bon a bon a bon def kiy dindi ba mu set wecc da bëgg sëy wala nga bëgg jëkkër moo ci gën a gaaw mën nga ko jot 7 jours sur 7 24 heures sur 24 mën nga ko woo si numéro bii 77 350 86 43 mbaa sax bu la neexee nga woo ko ci 78 389 15 02 soo ko woowee rek sa aajo jëpp dina faju jërëjëfu Cheikh Ahmadou Al Amin